di gunal day garam di way ak sant si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina na yaa nu jox say xi bamba jaara ma jaara jaaratullaahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaara asalaamaaleykum eh, tey jii dañu ànd ak suñu rakk suñu xarit le président Ousmane Sonko eh, ci turu euh, coalition Yewwi Askan Wi ñëw fii ci bis bu màgg bii eh, joxe suñu ziar eh, ñëpp xam nañ ne ñun ay taalibe lañu te fépp yow yoonu sëñ Touba woote ñoo fa war a jiitu loolu moo tax tey jii ñu ñëw fii tey seet si sëñ Mountakha Eh, bakke di ñaan yàlla yàggal ko fi suñu kanam te wér eh, ziyaare ko eh, li ñu bokk ñaan yàlla yàlla taxawu ko yokk fanam ak wér-gu-yaram kon nag lii moo nekkoon tànk yi nga xam ne moo ñu andi woon fii tey mu nekk bésub ziyaar di bésub sëñ Touba di bésub bépp taalibe sëñ Touba lii rek moo taxoon ñun bàyyi suñu activité yëpp Eh, te xam ne tànk yi mooy tànk yi ñu war tànk yi taalibe la tànk ziar la eh, ci bis màgg bi nga xam ne ni képp kuy jullit ci nga bokk waxatuma nag ñun ñi nga xam ne ay taalibe sëñ Tuubaa la. waa di sant yàlla di sant yàlla gannaaw gi julli ci yonent bi ay salaam di gërëm sëñ Muntaxa Mbàkke bu baax a baax di ko ñaanal yàlla nag li ko ñëpp li ko ñaanal kuy jullit ak ku dul jullit sax ñu ngi ko koy ñaanal mooy yàlla yokk ko wér-gu-yaram yokk ko euh, lépp loo xam ne luy dëgëral nit la ba mu mun a wéyale lii nga xam ne mooy liggéey gi muy liggéey liggéey gu am solo ci yoon wi waaye liggéey gu am solo ci lislaam waaye liggéey gu am solo ci senegal ndax gis nañ li nga xam ne mooy taxawaayam saa saa su senegal jaaxle kon loolu ñu ngi koy ñaan te lu ñu tibbee suñu xol la du waxu politique gannaaw gi it ñu wax ni euh, mbégte la ci ñun teew fii euh, ànd ak suñu mag suñu xarit suñu partenaire ci wàllu politique waaye ci wàllu àdduna it di El Hadj Malick ñu ñëw ci suñu tur waaye ñëw ci suñu turu coalition ndax dañoo bokk ci coalition muy yeewi askan wi ñëw ziare si euh, ci bés bu mag bi nga xam ne ki ñuy ziare dafa mat ñu war koo ziare. muy soxna maam Jaara Buso nga xam ne léeg-léeg dañuy faral di ko di ko tegtal wala di ko jox royuwaay jigéen ñi kese mhm. waaye jàpp naa ni moom dafa weesu loolu képp kuy jullit war nga war nga koo jël comme royuwaay ci ni mu dundee ak euh, ni mu joxee boppam borom bi ba yàlla faye ko ko ni mu ko ko fayee mhm. moo indi tey Poroxaan moo indi tey Touba moo indi tey feneen ak feneen mhm. kon kooku ku déplacé wu ñëw ziyaare ko rek danga ko war a def du loo xam ne danga nga koo def ngir ma sàmba wala ma demba waaye lu war la kon am nañu mbégte ci teew fii euh, am nañu mbégte ci jàkkaarloo waat sëñ Muntaxa nga xam ne euh, boo nee jàkk rek jàkkaarloog moom gis dal gi gis euh, yaatuwaay bi gis kanam gu leer gi dina am lu muy yokk ci yow ci pas-pas ci imaan waaye dina am lu muy yokk ci yow ci li tubaab di wax sérénité mooy dal kon loolu mbégte la loolu it ma wax nii am na benn relation bu am solo bu ñu am ak moom te lu bëri ci sénégalais xamuñu ko te loolu li ko jur mooy xoolewuma ko rek bëtu xalif général di murit waaye dama ko xoolee bëtu maam bëtu baay te saa suñu ñëwee li ma ko faral di wax mooy dañoo ñëw déglu si dañoo ñëw jël si ay tegtal dañoo jël si ay ndigal dañoo ñëw weccoo xalaat ak moom te saa su ko defee ñu defee ko noonu mosuñu koo rëccu ñu wax nag ni ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ko te bàyyi ko suñu kanam lu yàgg yàgg ndax réew mi soxla na ko réew mi soxla na ko diine gi soxla na ko yoon wi soxla na ko kon yàlla na ko fi yàlla yàggal ma daaneel nag ni dëkk bi bari nañ fi ay wëllëre ndax sëñ Moussa Nawel ni ñu jàppee sëñ Muntaxa lañ ko jàppee eh, di koo xam ne it daf ñoo boole ci mbiram gis ngeen saa suñu ñëwee muy màggal Tuubaa muy feneen gis ngeen suñu dalal ak suñu waxtaan nu muy demee noonee nag lañ ko amee ak sëñ Bass Poroxaan nga xam ne eh, gannaaw bi réew mi yëngatoo ci eh, at ci gannaaw moom la sëñ bi tegoon mbir mi ci loxoom mu am ci taxawaay goo xam ne ñëpp gis nañ ko moo mu mu andi relation de confiance mooy kóolute gu am suñu diggante ñun ñëpp nag classe politique bi yëpp ak moom hmm. kon su fi ñëwee it damaa ñëw seet si samay kilifa samay wëllëre samay soppe euh, daaneel ci wax niit dañoo ñëwoon nit ci gërëm sëñ bi ndax biñ ñëw ci màggal bi coalition bi yëpp àndoon ñëw seet si ko mu am lum ñu wax doonte sax ñun gëmuñu ni moom war nañoo gërëm ñun ñoo ko war a gërëm ci taxawaayam waaye moom ci niveau bi mu toll toujours day bëgg a wàcce boppam ba niveau boobu gannaaw bi mu waxee lool ba noppi daf ñoo ñaanal daf ñoo ñaanal te ñaan googu gis nañ ko ba gis ci lu kawe suñu njort ci lii ñu génn muy élection locale yi kon politique andiwuñu fi waaye am nañu sañ-sañ bu la nit ñaanalee lu baax nga gis ko boo ñëwee ne ko jërëjëf loolu tam bokk nañu tàkk ñu andi woon loolu daal lañ ci mënoon wax ci gàtt ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ko nal day gërëm di way ak sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna jaara soxna bégal nga àddina wóor na yaa nu jox say xibam fa jaarama jaara jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaara